ngeen ko bu baax fa tabarakallahu muy alxaaji mouhamadul amin ñan di responsable moral bu muhajirina wal ansar nga xam ne tey bëri na ñu jóge ci réew mi dem ziyaare ji beytillahil xaraam fa tabaarakallaahu euh, moom mi la ñu àndal ca euh, tukki bu mag boobu ngir mottali seen euh, juróomeelu ponk lislaam muy ku ñu xam ci réew mi tabaarakallaahu waaye tamit di doom ci sang bu tedd ba muqaddam ba wali ba nitu yàlla ba di tabaarakallaahu alxaaji maam Tidiane Niang bu ndar ka waxoon sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu ca wayam wa yaa laytani kuntu naalan aw akunu sariran lil xalifati yamshi lqutbu wal jaaw aka neexoon man xaaji tiijaan ñang ma nekk lal boo xam ne bu sëriñ kër si soxlaa noflaay tëdd ci sama kaw pour noppalu wala ma doon dàll yoo xam ni bu soxlaa jóg pour doxi soxla sol ma fa tabaarakallaahu ngir yàlla ak cofeel ak kóllëre gu doxoon digganteem ak Seyda Aboubacar sang bi toog sunu wayjur suñu soppee suñu xarit di alxaaji Mouhamadul Amin Niang njaboot la ci góor googu dekkoon ca ndar fa tabaarakallaahu moom la ñu àndal ci émission bi fas yéene waxtaanee rek actualité li xew tolluwaayu réew mi fa tabaarakallaahu ak jikko yi eh, ndax yooyu rek mooy Euh, yi ñu war a jàngat mm, fexe nuñ ko defaree ndax euh, innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq la sallallahu alayhi wa sallam euh, waxoon dañ maa yónni pour ma ñëw complété si jikko yu rafet yi yëg nañu nag sang bi ne jikko yi fi mu toll nii ci crise bu métti la ñu toll fa tabaarakallaahu mi ngi ànd ak délégation nag boo xam ne bu tedd la fa tabaarakallaahu di oustaz Malick Badiane bokk ci délégation bi ak oustaz Njambe Ñang fa tabaarakallaahu ak Haji Duudu Ñang eh, tabaarakallah ak Mouhamad Dieng di jarbaatam fa tabaarakallaahu bokk ci délégation bi ak i tamit eh, Haji Babacar Diouf fa tabaarakallaahu moom it di suñu rakk bopp fa tabaarakallaahu bokk ci délégation bi ak i tamit euh, Thierno Diouf euh, macha allahu taala ñi ñooy ñi mu àndal ñu gungee ko ci euh, bésu tey bile ci plateau bi kon dañuy bàyyi suñu wayju suñu papa suñu soppe suñu xarit suñu sëriñ di El Hadj Mouhamadul Amin Niang mu nuyoo fa tabaarakallaahu ñu soog a nag xuus ci waxtaan wi incha allah papa bismillah tafaddal mashkura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 Euh, xam naa euh, papa li ñuy ubbee waxtaan wi rekk mooy euh, jikko yi nga xam ne yëkk nañu ne actuellement fa tabaarakallaahu ñu ngi ci crise mm-hmm. te mooy yi nga xam ne rekk moo mën a jagal penc mi fa tabaarakallaahu noonu ñu ko ñàkkee bu ñu ko bëggee delloosiwaat pour gën koo jëmbataat ci xol yi ba lenn lu ci nekk tege fa mu war a tegee jëflante yi diggante jullit yi jëflante diggante mbokk yi jëflante diggante ñi bokkul liggéeyukaay ñépp mën a déggoo mën koo jaar ci yoon fa tabarakallahu ba kenn du am loo reproché sa morom doo am loo ŋàññee sa moroom jikko yooyu papa euh, nuñ ko mën a gën a saxalaate gën a rafetaat ñu euh, euh, implanté waat ko bu baax ci xol yi di ko mën a dund bu baax a baax a baax a baax incha allah loolu yaakaar naa ni euh, tomb bu am solo la ñu war cee waxtaan incha allahu taala jazakallahu xayran waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ustaaz asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله كما وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك يا رسول الله قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبقين ويدقلوا أجنوا سيطان أكفنين من نك غناوني أستاذ نيو كليف الديني ماجي تكسم نيو تين نيمو لم يب دي لين نيو جارول ما di ñaanal kilifa diine yan yàlla saxal leen te jàppale leen ci mission bu rëy bi nu yor oustaz hmm. li nga wax dëgg la hmm. crise bu rëy la ñu nekkee hmm. crise su jikko ak crise ñàkk imaan ndax ku gëm yàlla dëgg-dëgg te islaam alquran dafa wax lépp il ñu dellu ci lislaam pour dégg yàlla feeg nag delluwunu ci lislaam mhm. du nu am jàmm tey du nu am jàmm ëllëg mhm. yàlla dafa jàngale te yàlla mhm. duñ ko war déglu te ñi mu jàngale duñ ko war déglu boo ko dégloo daa ko dégg boo ko déggee daa ko déggal boo ko déggalee daa ko gëm boo ko gëmee daa ko topp boo ko toppee daa ko ragal boo ko ragalee daa ko doyloo muy juróom juróom benn tomb ben bu nek nak daf ko wax ci alquran tomb bu dekk bi nokay deglo dégloo. awalu yajibu ala almukallafi tasxiixu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslixu bi fard aynihi ka ahkam as salati wa taharati wa siyam lol la xere yu wax. ki jóg di jamu ji yàlla. ni xam yàlla ba pare. aarifuni qabla an taabuduni borom bi tabaraka wa taala dafay jàngale ni na ngeen ma xam bala ngeen may jaamu mais ni ngeen may jaamoo maa koy jàngale dinaa koy jàngale dinaa yónni ay yonent itam jox leen ni téere pour ñu jàngal leen ni mana ak nu ngeen war dunde ci jamono bon léegi feeg delluwunu nag ci baatin ci loolu mhm. du nu mën ndax coow li bari na ci réew mi looloo tax may wax ni xoolal ma wax ni mu mel hmm. ngelaw la kenn du ko gis defar na réew tas na réew kon nan ko yeew bu dëgër bul bàyyi moom wax moom wax làmmiñ bul bàyyi wax mu boyal ba taal sa kër mu saxaar boo teelul fay dana taal sa réew te yaa ko boyal te ci la ñu toll wallaay wallaay làmmiñ fetal la bu gaaw hmm. xam nga fetal hmm. bal nga ciy def dóor ka nga diir daanu bu dee nit wala muy bàyyi ma ma ni làmmiñ nag fetal la bu gaaw mhm. kàddu yi ngay waxee mhm. boo ko bala nga koy génne seet ko ndax nii ma tooge di wax mhm. ci télévision bi su ma waxoon musiba ñépp ni ëy dégg ngeen li wax est ce que mën nga dugalati demati ci nopp ku nekk nga rocc la mu déggoon ku mu ne wallahi ndeysaan bon bu la rëccee doo ko dab mm, lisaanaka kal asadi waaw in tutliqhu yakulka da lay lekk wallahi ndeysaan te yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne nit da nek jullit mm-hmm. xëy nekk jullit balaa ngoon mm-hmm. mu nekk yéefeer ndax làmmiñam motax mani mm-hmm. lamiñ fetal la bu gaaw bul bayyi bal yi fettal moy mu tas bu lo recce do ko dab jappal ma wax ba du tas xoolal ma wax ni mu mel ngelaw la kenn du ko gis mm-hmm. waaye defar na réew tas na réew bon nan di yéexe waxam mm-hmm. dëkk yi mm-hmm. nga xam ni tàkk na yëpp li leen tàkkaloo mooy rajo wax ci rajo rek nit ñi jël jël arme suñu dëkku yu bari looloo ko yàq bon nañu bàyyi wax yi te liggéey borom bi tabaaraka wa taala dafa dafa préparé yëpp teg ko ci àddina laata mu bindoon bi nu bindee itam mu ni wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha hmm. wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin mubin xam nga kitaab mubin mooy lan hmm. internet parce que internet mooy kitaab bi mubin mais dégguñu ko woon lawxul maxfuus ak xalima ga lawxu ga mooy hmm. kii xalima ga mooy marna kii. Euh, pusuwaale euh, tabarakallah ndeysaan clavier bi clavier bi. Mhm. yalla ni kullun fi kitab bi bon yalla wone na ni moom am internet xoolal ba ko annoncer tey mais tuddewu ko won tubaab yee tuddé sen boss internet. oui lawxul mahfuz ñun niñ ko xamee woon. Mhm. boo daan jang duñ da ngay dem ñu yettal la euh, àlluwa. Mhm. ba paré ak khalima ngay sos daas di bind. ndekete yalla annoncer na. internet booba. moo tax kullum fi kitaab yi mu biir li war dem ci àddina ba mu jeex lépp a ngi sama internet man yàlla gis nga alxuraan ni muy demee lépp la indi wallaay ndeysaan nga demaat alxuraan jàngal la wal xayla wal biraala wal xamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taala mu ndege mi ngi annoncé avion ak bateau ak oto bindal naa leen fas ak niile ak mbaam pour ngeen ci war ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais bindal naa leen waruwaay yu ngeen xamagul alxuraan extraordinaire annoncé ni te ñetti waruwaay yi mu am yi mu waxoon yi mu annoncé woon mhm. ñetti waruwaay yooyu du changé ba yomal xëyam camion mhm. camionnette voiture mhm. bon mbaam mooy voiture camionnette mooy fas miile mooy berkelle mooy camion ñetti ñooñu boo demee ci oto yi looloo fi am avion yi looloo ci am bateau yi looloo ci am xoolal ba mu ko annoncé pour wax ni lépp a ngi ci boo li xew ci jamono jiitam lépp a ngi ci coow li yépp nguur a tax ku coow coow yépp nguur la est-ce que bëgg nguur rek te yàlla ne qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli waaw kay foofu na ngay xàmmee نقول أكبر بكل مالك الملك كوكو يالا لا ماي بور مي جوخيوما بور نقول لاي ابلي نونغو مالك الملك من بروم بلين موم yéen. bu ngeen organiser réew mu nekk danaa am ku ma fa teg. mais man maay teg ku ma neex maay teggi ku ma neex. xam nga buy fàggu ba buur nu muy def. day wax ma laa yi ni leen. gërëm naa diw. dëkk sàngam diw laa fa bëgg teg. ñii ñii amee ndox mi xaatim leen ndox mi. nekk ñëpp may carte. bu buggee wàcce buur itam dafa naan mere naa diw ndax na mu yore woon réew ma baaxul. bugg naa ko wàcce def leen ko ci ndox mi def ko ci ngelaw li ku naan bëgg pour ñu falu ku noyyi bëgg pour ñu fal ko moo tax may carte yi du hasard yàlla koy def bu ko defee malaaka yi xaatim ko dugal ko ci ngelaw li ak ndox mi ñu xam ni diw lañu war may carte mu falu mooy tuuti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha lu muy firi yaay roccee nguur ci ku la neex. waaw kay mais mooy arbitré. Mhm. ki mu jox nguur bu demee ba yëg ni moom buur la. Mhm. yàlla wàcc ka ndax yàlla sixième bi kenn du ko joxoñ. ndeysaan. loolay problème bi ñuy dund léegi. ndeysaan watu ay zoo. man tasha lu muy firi. yaay teral ku la neex. ci nguur. Mhm. watu zillu. man toroxalit ku la neex. waaw kay. moo tax ku mu wàcce rek mooma. ndax moo amee nguuram moo koy séddale nu ko neexee. mu des nag ñi nga xam ne ñooy nguuru ak ña leen di fal. mooy des foofu. il faut nag ñu dellu ci yàlla gëm ni wa maa min dabbatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa wa yaalamu mustaqarrahaa wa mustawdaa yàlla nee na foo mën a ne ma amee sa wërsëg maa la koy jox kenn ku nekk ci yéen. demal demal léegi marché boo dem xoolal na dàll yee bare kuy wàcc yóbbaale dépense. xoolal nit yi si bare. ku wàcc yóbbaale dépense. xoolal na machine yi bare ku yóbbu wàcc yóbbaale dépense. ñi yalwaan ku wàcc yóbbaale dépense. ñi amul dara ku wàcc yóbbaale. nee na man maa koy séddale. Mhm. waaye nag. Mhm. ki ma fal bu mu yëg ni buur la. Mhm. heure bu yëgee ni buur la ma wàcce ko ndax sama siis kenn du ko jege. moo tax fi ngay xàmmee nguur xulillahu maalikal mulk tuutil mulka man tasaa wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu wa tuzillu biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir mu wax lu kenn mënul tuuli ju layla fi naheer ndax ki ma abal nguur mën na changer guddi mënu ko ndax mën na changer bëccëg mënu ko parce que foofu ngay xàmmee nguur ak buur saa ko wax benn chef d'état mhm. ma ni ko bul yëg ni buur nga de heure boo ko yëgee rek yàlla wàccal mu ni ma lu tax ma ni ko ndax jën géej gi yaa koy yilif ndax yaa leen di jox jë euh, yaa leen jox dund jën yi. Mm-hmm. oxygène bi nuy noyee ndax yaa koy joxe. Mm-hmm. xool xàmmee ndax yow la. Mm-hmm. dégg xàmmee ndax yow la. bi yàlla bindee doomu aadama yi. kenn ku nekk daf la jox kaddu ci ndox euh, oxygène bi ngay noyee mu ni maa ko am. parce que moo bëtt sa bakkan neen naa ci dugal ngelaw. moo bëtt sa gémmiñ dinaa ci dugal euh, li nga war a lekk ak li nga war a naan. pourquoi doo ko gëm. ñàkk gëm googu nag moo nu indil fër-fër ji. dëgg waaw nekk ci nguur wàcc ni il faut may may yoraan nguur yàlla waxul loolu. tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman nañu dal. dëgg la ñëw. parce que boo xoolee léegi senegal ni mu toll lépp. ñi dul dugg ci gouvernement. ñoo triplé ñiy dugg ci gouvernement. wallaay ndeysaan. te ñi dul dugg ñëpp xam nañ ne ba yomal xëyam duñ ci dugg. <laughs> bu muy xëccu nanu am kersa ci ñi ci àll bi xool ñi nga xam ne amuñu amuñu ndox amuñu yoon ñu ngi yaakaar ci mbay pour dunde ñu ngi toog dinu seetaan hmm. yow mi mosoon boo wàcc ni il faut ma yéegaat <laughs> ki mosul mos ni tey ma yéegaat man tam tey ma yéeg pour mosi ki mosul mos te ki mosul mos hmm. ñetti ñetti catégorie la hmm. ki yéegoon wàcc bëgg dellu ak ki fi yàlla teg te jógagu fi. Mhm. ak ki masul yéeg bugg yéeg. ñett ñii rek ñoo la jël Sénégal. nañu rus yàlla. wallaay wallaay rus nit ñi. rus ña ca àll ba. nga xam ne mosuñu dugg ci nguur te duñ ci dugg. te ñu ngi leen di seetaan. Mhm. ak gor yi nga xam ne ñu ngi fees dell xam-xam toog te waxunu mhm. fees dell ci réew. moo tax yàlla dafa planifier lépp. ñu ñun nag ñoo gëmul. te wal fitnatu ashadu min al yàlla ne bu leen yëngal fitna du yem ci seen loxo waaw yaquluna bi alsinatihim maa laysa fi na ki ma gën a bañ mooy kii wax ci làmmiñam lu lu nekkul ci xolam kabura maqtan indallahi an taqulu maa ak kii wax lu mu dul jëfe kilifa ngay gis fii mu jox la carte d'identité euh, euh, carte téléphone am mhm. nga am problème bu rëy diis ko ko mun la bu ëllëgee ma faj ko ëllëg nga ñëw mu ni secrétaire bu ñëwee nekkuma fi <laughs> yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi quluubihim moo tax Sénégal da ngay xool nit ku lay wax nga gis euh, wajhayni ñaari kanam kiy wax ak kiy fen te lépp benn jëmm ji moom la moom la arab tudd wajhayni borom ñaari xar kanam ñaari xar kanam. Mm-hmm. ki lay wax di fen moom mu mu xam ni lim lay wax daf lay nax. mi ngi fees dell ci réew mi. ñooñu la yàlla wax. Mm-hmm. Euh, innal munafiqin fi darakil asfali minan waaye jëlal bale yu xaadi'uuna allah wa xaadi'uhum wa iza qaamu ila salaati qaamu kusala yuraa'uuna annaasa wa la yazkuruuna allah illa qalil ñu ne alquran mu ni mu zabzabina bayna zalik la ila haulaai wa la ila haulaai fa mu mujje fi darkil asfal minan naar yàlla nee na ñuy xooñu safara <laughs> kiy wax lu mu gëmul ak kiy wax lu mu dul def kiy dégg julli ba pare wor ko mhm. est-ce que xam nga carte électeur lan la wax. carte électeur dafa wax. dafa wax. lu mu wax waaw koy bi ngay jox nit ki carte wi. pour pour pour ñu fal ko. ñu fal ko da nga ni carte wi. li ma amoon ci teraanga kii laa nga fa séene jox. ci biir réew mi ak biti réew mi. nan ko wutal palais. bu mu ca fay dara. courant bu mu ca fay dara ndox bu mu ca fay dara. ñu tànn ci ñun ñu koy garder du mu ca fay dara. Hmm. wutal koy oto du fay essence du fay chauffeur. du fay bon fu mu dem ci réew mi teraanga ba ma ci am jox naa ko ko te itam bu génnee na nu ma arrêté mu jàll loolu la carte électeur wax nga jox ko say teraanga yépp mu falu fàtte la ndeysaan tabarakallah euh, papa asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Lamine waaw maa ngi ziar <laughs> mbaa dara jotu la. waaw euh, dem na ay su kay na ku baax kay na faal jërëjëf fële ca Petit Mbaaw di wallaay ndeysaan ku euh, baax Habib Bey jërëjëf di waa daay sa daayira bopp bopp wallaay ndeysaan ñu ngi koy ziar di ziar Habib sëñ Habib mhm. di kontaan ci yéen bu baax ak waa daayira bi bàyyiwuma kenn mahabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziar bu baax wallaay wallaay wallaay wallaay xam naa tey mbokk yi ñu wax leen rek yéen a ngi ci émission bi ku bëgg participer numéro baa ngi noonu affiché da ngay tapé euh, euh, nu tudd 88 628 71 71 nga yëkkati dëgglu ba ñu indiqué la nga soog a tapé 1 euh, noonu ngay def mën a yegg si ci 88 628 71 71 nga yëkkati dëgglu ñu indiqué la nga soog a tapé 1 bi ñëw en direct incha allahu taala tabarakallahu ni leen ko waxee dégg ngeen sunu wayjur sunu soppee kàddu yu am solo yooyu nga xam ne jot na ko yëkkati muy lu am solo di actualité di tolluwaayu réew mi waaw li ñu li ñu sonnal rek ni mu ko waxee mooy ñàkk dégg suñu borom subhaanahu wa taala waaw te lépp lu fi waay di xëccu sa xel war na dem te na ko naa Omar ibnul Xataab رضي الله تعالى عنه دان دوندي اك نيمكو ديغيوون باسكو غناو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بابا سيدنا ابو بكر الصديق مو ووتو رسول الله غناو اسيرو انتريم بي غناو سيدنا ابو بكر سيدنا عمر بن الخطاب واي ييغون نا تي ريسبونسابيلتي بيمو خامون اك الك ليكوي خار تي كانامو بوروم سبحانه وتعالى جوليتي مو يوري سين كادو dem ba yegg ci ne maana asalaamualeykum wa rahmatullah. maaleykum salaam. waa kay sàng tur foo ñuy woowee. man maa ngi maa ngi denc tur bi maa ngi wootee Maris. yaa ngi wootee. Maris an Maris waaye da ngay denc tur bi. damay denc tur bi. waaw kay bisimilah bisimilah. damay nuyu Papa Lamine. waaw kay maa ngi fay. di di ko sant. Mhm. jërëjëf. man ba ma ko gëjee gis ak léegi am na ñaar fukki ak benn. ndeysaan ma dem umra ànd ak sama ay mag dal këram. waaw. saan Xadi Njaay man maa gënoon tuuti ci ñu àndoon ma ñëw mu ne ma yow doo fay dara. wallaay ndeysaan. ma dëkk fa fukki fan ak juróom di añ añ bu neex reer reer bu neex rékki ndékki bu neex. Mhm. dafayu ma dara yéen yéen rëf rëf riwu leen. wallaay ndeysaan. ba yàlla dogal nag sa njaboot ñëw dëkk man benn koñ tax ma yéex ko xam ñu dëkk at te xamante wuñu daanaka. wallaay ndeysaan wallaay. mais ñuy def lu rafet di jël xale yi ñun ñëpp dañuy togg reer fii Maris. ndeysaan. mais dañuy Amina dafay ne xale yi bu leen reeree seen kër yi ñëw leen maa leen invité sama kër. wallaay ndeysaan. xale yi di añe këram di fa reeree mel ne kër Amina kese moom moo fi nekk. wallaay jërëjëf. kon ñoo ngi lay sant di la gërëm di gërëm sa njaboot. jërëjëf. di leen ñaanal yàlla lafal leen cat guddal seen ay fan ñoom ñëpp. yàlla boole ko ñun ñëpp. jërëjëf kontaan nañu kontaan bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu. incha allah daanu gisee bu neexee yàlla. jërëjëf ndeysaan tabaarakallah sant ko bu baax. wallaay ndeysaan euh, xam naa rek li mu wax euh, méngoog naag. la sa jabaat ba wax soxna Hourayratu Taal. Hourayratu waa ndeysaan ma ca Mermoz. wallaay ndeysaan moom itamit euh, seede bu mel noonu la def. wallaay euh, ndeysaan ci sa euh, yaakaar naa vol la demee Makkatal Mukarram. wallaay ndeysaan ziyaara ji Baytullahi al-Haram moom ñu nuyu ko passage. wallaay sa jabaat soxna Hourayratu Taal. wallaay tabaarakallaahu Mermoz. ñu ngi koy nuyu bu baax Hourayratu ak. Mm-hmm. Aminta Aminta sunu jarbaat moom it. Mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax Aminta Taal. sunu jarbaat la magam la dëgg la ndeysaan moom ku baax la yan ñu koy nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla tabaarakallah asalaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw kookal la tonton Lamine waaw waaw ñang ñang kooku man la maa lay amoo ah lay <laughs> waaw xam naa maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziare Amady ñëpp bàyyiwuma kenn. waaw kay ña ñu ngi lay ziar <laughs> waaw incha allah bu déwénee ñu delluwa incha allah. ok yal na ko yàlla def ok allo. tabaarakallah wootee foofa la ci Amady. moom itamit euh, gis nga euh, def na seede ci euh, li nga xam ne mooy sa taxawaay ci jàppale leen ba ñu mën a dem mm-hmm. mottali seen juróomeelu ponk lislaam mm-hmm. ca baytullahil haram fa tabarakallahu mm-hmm. ñu kontaan ci bu baax a baax a baax waaye papa gis nga li ma la doon wax léegi rek waaw Seydina Omar kon ci tiitaangeem daan na wax ne yaa laytani assalaamu aleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala maa ngi ziar bu baax taalibe Lamine Niang waaw. ngi lay ziar. maa ngi ziar bu baax di nangu ziar bi. bokk tur be foo ñu woowee. ma ma maa doon liqaam léegi ci ah, ci jumaa ji imaam. Eh, ngi lay imaam maa ngi ziar bu baax waaye. ñu ngi ci waxtaan bi bu baax a baax. wallaay ndeysaan. yàlla nañ ko dégg te jëfe ko. amiin amiin yaa rabbal aalamiin yàlla may la gudd fan gu ànd ak wér. jërëjëf jërëjëf imaam. yàlla sàmm sàmm. moom mooy sunu imaam. naay bu imaam ci kii Fass. Fass baax. Eh, tur bi borom xam-xam borom xam-xam la. allo. dem na defal bismillah allo allo tabaarakallah mel ni xaw na am tuuti jafe-jafe ci. waaw ci ligne bi wallaay ndeysaan. ñu bari bëgg nañu dugg. ndeysaan waaye yombul du yomb. asalaamaaleykum wa rahmatullah. allo. ku baax kooku. tur waaw kooku. xanaa damay leb bi rek. waaw baax na ñu ngi lay lebal loolu waaye ñu ngi lay fay di kontaan ci sa woote. waaye tamit waaw. nga jox ma ay dog yoo xam ni. Mm-hmm. dama ba léegi ciwuma ko. jërëjëf. ma bëgg nag ñu bàyyi nag affaire lii ñu lay euh, euh, li ngay wax nii. waaw ay dimbale ñu ci dox yi. waaw incha allah incha allah bu neexee yàlla incha allah jërëjëf jërëjëf boo jógee rek woo ma ci sama téléphone incha allah wala nga ñëw incha allah daan la ko jox bu neexee yàlla. Mhm. ñii bëgg nañu jaamu yàlla. wallaay wallaay ñang baalo bëgg nañu jaamu yàlla wallaay ñang euh, gis nga gis nga wallaay léeg-léeg léeg-léeg euh, damay damay damay am ñeewant. damay am ñeewante gis nga am na ñoo xam ne papa eh, lislaam ñor na leen bëgg nañu baax waaye ñàkkul asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum allo tabaarakallah mel ni gis nga ni nga ko waxee mbokk yaa ngi ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum allo allo allo salaamaaleykum allo. allo salaam allo waaw ñu ngi lay dégg bismillah kookoon la. la <laughs> soxna Hurayra taal taal sa <laughs> ñeeng mm-hmm. maa ngi ziar ñoom. Oustaz la ñaanal yàlla. amiin ñaanal yàlla may gudd fan ak wér. amiin la suñu kanam. ñaanal Oustaz Mor Diouf moom. waaw amiin taal. yokk xam-xam bi. amiin taal amiin taal. bàyyi ko suñu kanam. amiin maa ngi ziar bu baax. nga léegi mm. ma ko bu baax ak sëriñam. jërëjëf ñoom. taal. jërëjëf merci. Mm-hmm. tabaarakallah ndeysaan ñu sant ko bu baax soxna Hurayra mi ngi ko. ndeysaan fa tabaarakallaahu xam naa léeg-léeg mu lëjël ma waaye ma lëjël ko rek. wallaay ku baax la ah, ndeysaan daal xaw ma dangaa bëggoon xam naa comme ma ñu leen daan wax ne muccaat. wallaay ndeysaan xaw ma day nëxal xel. wallaay ndeysaan xam naa bëggoon la rek. <laughs> da ngay bindal kiis rek <laughs> incha allah. yal na koy yal na xel. ndeysaan. Euh, euh, asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi leen di ziar. yal na yàlla nangu ku baax. di ziar nag sama sama xarit boobu toog foofu sama jàmm El mm-hmm. la sama xaritu borom kër la. waaw kay. dañu yàgg maag moom. waaw kay. màkk jàngal na ma fa lu bare bare. jërëjëf baal mi soxna si tur bi naka la. dañ euh, koy nag moom xam na ma woon na ma sànq fekk ma nekk ci benn cérémonie man kat dinaa la rappelé. waaw kay. waaw yéen moom moom. Diop Diop Diop Diop. <laughs> waaw merci merci Niang. Diop na sëriñ bu baax. kontaan naa bu baax Niang yal yàlla guddal sa fan. Diop yàgg na nu mën ak yow yàlla wéral sa ñu yàgg. nga jàppale nu bu baax ci muhaajirina wal ansaar. jërëjëf jërëjëf Niang. waa Sonatel yëpp nga nuyul ma leen. <laughs> jërëjëf kontaan ci sa taxawaay yi Sonatel bi nga bi nga organisé say xarit ñoo ëpp doole ci muhajirin jàmbaar la dafa dafa organiser benn cellule ci xaritam ci Sonatel ku nekk cent mille par weer pour dem màkk yóbbu nañu seen i jëkkër yóbbu nañu seen i mbokk ñoom dem nañu boo jeexal mm-hmm. yóbbu seen mbokk yépp yóbbu seen i jëkkër ba daaw boole na ma ak jëkkër ma ànd ak moom màkk ku am faayda ku bugg diine jigéen ñi amuñu morom. waaw góor ñi baax nañu waaye jigéen ñi amuñu morom. bëgg nañu diine lool. waa koy jóg. jigéen ji yal na ko yàlla dolli yërmande. ok. Hmm. allo mel na ni tabaarakallah ñu sant ko bu baax gërëm ko macha allahu taala. Hmm. Euh, wallaay ndeysaan. 88 628 71 71 nga yëkkati déglu ñu indi la asalaamaaleykum. waaleykum salaam na ngeen ñu ngi sant yàlla ku baax. Alaaji Lamin waaw kooku kan la naar ba ah naar maa ngi ziar bu baax ba <laughs> ñang ñang ñang ba yaa ngi si jàmm maa ngi sant ñang waaw kay ba naka njaboot gi bi ma ñëwee ba tey gisante wu nu woo naa la mais jotuma la dëgg la ana nga fay ba ñang ñang jërëjëf kon waaw kay ba jërëjëf maa ngi lay ñaanal bu baax. yal nañ ko yàlla boole nangul. bu neexee yàlla maa ngi jóg ñu ngi waxtaan léegi dinañ ñëw gàmm ka bu neexee yàlla. incha allah bu neexee yàlla le 14 février ah. gàmm Pout waaw. jërëjëf jërëjëf Niang. incha allah jërëjëf. jëf Niang. jërëjëf Ba. di sant tabarakallah euh, ñu sant ko bu baax. moomu xaaj naar ba. Mm-hmm. Euh, ci wooteem tabarakallah papa xam naa ni Euh, ñi nekk ci yoon wi yëpp bëgg la jot. fa tabarakallahu ngir yàlla ak cofeel. wallaay ndeysaan yàlla ak jëflante bu rafet bu baax. mu amala xasana. waaw kay ndeysaan lii day wone ne rek ne. Mhm. Euh, mbaax rek moo am solo. wallaay dëgg la euh, woyof rek moo am solo. wallaay dëgg jëflante nit ñi comme ni ko Seydina Muhammad jàngalee. sallallahu alayhi wa sallam wallaay loolu rek moo am solo. Mhm. te loolu lañu yëkk yëg ni. Mhm. moom nga jëflante ak mbokk yu baax yi nekk ci ligne bi boobu ba léegi. wallaay ndeysaan xam naa ne ñii ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon bi te egg si wuñu waaw mu arrêté fu te waxtaan wi toll na foo xam ne. Uh-huh. Euh, am na solo lool lool lool. ñu ñaan rek allo. waaw mu baal ñu tuuti rek. asalaamaaleykum. waaw. mbokk kookan la Touré foo ñuy woowee. man la Ibou Lo rek Mansour Lo ak Maodo Lo. ah ah yow de ñoo bokk bàyyi. <laughs> dëkk dëkk Ndar xarit mu xarit ak ñaan ak rajo Mame Birahim. wallaay jërëjëf jërëjëf. waaw ñaan dama la ko si affaire yi ndax dañuy di leen ziar na yàlla nangul nu yal na yàlla nangul lépp. incha allah ñu ngi lay ziar ci ajuma ji. ñoo <laughs> nga nuyul ma ñoom Mansour ñëpp. dégg dégg xaaj Malick Mbattane na. incha allah tànn baax waaw koy jërëjëf loo jërëjëf loo. ñu sant ko bu baax gërëm ko. Mm-hmm. <laughs> ci euh, woote boobule. bu ko defee rek euh, papa mi ngoog ah, nga tolloon ci point bu am solo mhm. te mooy li nga xam ne moom moo sonal euh, réew mi mhm. lépp rek euh, ci xëccu ak bëgg nguur mhm. te itam mu nekk responsabilité bu mag ëllëg ci kanamu subhaanahu wa taala waaw kay ndax itam Seydina Omar li ma la ko waxee léegi noonu la daan wax ni daf daan jékki-jékki ne ak a neexoon ma bañ a juddu. Mhm. yaa layta nii lam talit nii ummi. ndax responsabilité ah, ndax responsabilité bi. ragal ko ragal ko. xam ko wax ba ni mbote mu euh, tafakastalu ci pindu teen tab bi ci biir dee ca. Hmm. responsabilité boobu ëllëg Omar la koy laaj yow ma xiyam. dëgg la kon damay yaakaar ni. Mhm. ñi nekk ci terrain bi. Mhm. mu jaral leen lu nekk pour am ndombal tànk. ak euh, yi ciy xew. léeg-léeg manifester yi am. ay doomu aadama loroo ca. fa tabaarakallaahu te yow bi nga xamante ne nii yow yaa euh, organiser loolu yaa woote loolu. nga war a xam ni am nga ci loolu part de responsabilité. su ko defee ñii di xëcc ne dañ ko def far la force. ñee taxaw fee na du ngeen ko def par la force. bu ko defee doom yi jàmbur yi. la mm-hmm. ñuy mobiliser rek yóbbu leen ca. ñu loru ca ñi ñu xam ne seen i wajur ñu am ci ñoom yaakaar pour ñu mm. taxaw leen ëllëg mm. loroo ca coowal ñu loolu mooy yàq réew mi mm-hmm. te alxuraan dafa préparé tout wax na lépp mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal nañu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yawmal qiyaama yàlla na laaj lépp te responsabilité réew dafa rëy wallaay ndeysaan nit ñi nañu dellu ci yàlla xam ne moo yore wërsëg wallaay ndeysaan réew mm-hmm. suñ la si yéegee jox la tout ce doo fay essence doo fay chauffeur doo fay oto doo fay kër. wax dëgg yàlla nga moske ci ñoo xam ni ay ay dix millions dous million mu war la doy. ña faloon. dara waratul tax ci àddina bi nga yëngal fitna ci réew ma. te yëngal fitna baaxul de. parce que réew yi yëngatu yépp fa muy mujj du baax. raw na nga koy génne ci sa làmmiñ mhm. moo tax. Mhm. yàlla mooy fal nit mooy daaneel nit. <laughs> ñaata fi jaaragul. ñeenti président wàcc nañu. ku xas ba paase. Mhm. lépp loo xam ni yore woon nga ko sa nguur borom bi dana la ko laaj yonent bi nee na kenn du teggi tànk. Mhm. te waxuloo ma dërëm bi nga jëloon. Mhm. foo ko dugal ak foo ko jëlee. dërëm bi nga jëloon. ci alalu nit ñi. Mhm. foo ko dugal. Mhm. ak foo ko jëlee. jëlee waaw. yàlla nga gis. te àddina jarul bàmmeel xataayu bàmmeel. Mhm. jarul dërëm. wallaay te itam taxaw. ñu joxoon la nguur génn. ñépp dégg ni ñu ngi lay topp dërëm. gàcce mënu ko weesu. papa xanaa loolu moo taxoon. Seydina Muhammad daawul nangoo jullee ku bor. waaw kay amul ko ko gàddu. ku dee dafay laaj ndax am na bor wala amul bor. waaw. Mhm. bu amee bor mu ne ku koy gàddu. asalaamaaleykum am na ko mu ne ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum ñu ngi euh, waaw. man la euh, frère Ismaïla Dem maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax. Ismaïla Dem waaye yow gëj dem laa nama bi fii man xaw ma dafa woon naa sax yaa nga fële. Cheikh maa ngi ziar. <laughs> waaye yow daa xaaral la Cheikh gis naa la ci waxtaan yi fan yi passé. di kontaan bu baax a baax ci seen waxtaan ci euh, di la jaal Malick. wallaay ndeysaan Abdallah. wallaay man ngeen waxal ndax Malick Abdallah. conférence islamique bi bu njëkk ba man lan ko booleeloon. wallaahi de fekk ma retraité mu ni ma maa lay jox séjour nga toog fa yaag sa njaboot looloo ma toog loo màkk ba ba fii ma toog. wallaahi de yow kay. man dafa naa ni man la ko ñëpp war jaayal mu buggoon ma lool nag. yal na yàlla dooli leer xam nañ ci dara ndax fekk naa la fa. waaw tey tamit yónnee naa la sama soxna. waaw ba taa waaw dal nga ci man dal na ci man waaw yow maa ngi yow benn lañ bokk bàyyi. ñoo bokk mbir mi ñoo bokk daal ñoo bokk diine yi ñoo bokk lépp ngay borom xam-xam bu mag représenté réew mi yépp représenté bitim réew fii yore yore yore rabita bi yal na la yàlla gën a yàggal wallaay moo tax ma kontaan lool ma ne xaaral wallaay frère bi daal géej naa ko vraiment ñëw naa nag ñëw naa di ko encouragé ko ñëw naa maa ngi lay invité le 14 février gàmmu pour incha allah bëgg naa ñu gisee 14 février baax na incha allah na nga ñëw de maa koy jiitu. te nga gërëmal ma sëñ Moustapha Cissé. waaw organisation boobu mu def ci Malick Abdallah. toujours mu waxtaane la mu ngi mu ngi lay sant waaw nga gërëmal ma ko nuyul ma ko ziareel ma ko ni ko gàmmoom gi la 14 la incha allah. incha allah jërëjëf jërëjëf. kontaan naa loolu Ismaïl danaa la woo danaa fa ñëw bureau ba incha allah. li nga am solo la. waaw noonu la. incité incité foofu rek. voilà dëgg la jërëjëf. nañu wut jàmm jàmm moo am solo. moo gën.

wa taqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan yàlla waxaat ni mm. eh, na bu leen yëngal fitna ndax yow mi yëngal fitna du yem ci sa loxo nanu daw fitna ndax réew yépp a ngiy tàkk mm. pays arabe yëpp tàkk nañu ngir fitna réew mi jàmm a ngi fi mm. man dama daan ñaan toujours y a vingt cinq ans mm-hmm. ma ni mm-hmm. eh, eh, kii parti du yore réew mm-hmm. yore réew mooy borom xam-xam yi nu yaakaar yépp comme nii ñu def ànd àndandoo jàppandoo réew mi. ñoom tanoor ñi ñu def ñoom Moustapha ñoom ñëpp ñu joxante loxo. ñaan naa ko ba tàyyi wax naa ko ba tàyyi. bon nag fii réew mi nekk bu nu ko yàq. Mm-hmm. nan nu may jàmm. Mm-hmm. te nag boo dee seet intérêt personnel rek moo tax. waaw maa ngi ñaan président Ablaye Wade man sama xarita mm-hmm. kenn gënu ko. waaye nag na na na na na delloo ñëpp. ci jàmm. man ko koy ñaan suma xarit la man danaa ko seeti pour que mu selal seral te yàlla ngi arbitre buggul fitna ñàkk bañ problème moo tax yàlla oxygène bi du nu fay facture wa sama wal absaara wal afida qalilan ma tashkurun Suma ma ko ngian nit ngeen loru bon jox len leen oxygène ngeen di noyyi du ngeen fay facture mhm. jox naa leen ngeen di deg, jox leen waaw nañu dellu démb xool mag ñi fi nekkoon démb moo tax ma bind ci sëñ ab ma waxoon na bind ci wolof jaaraama mag ñi fi jaar seen jëfeere yi na rafet tool yi ñu bay noo ko góob bon ñun nan dool li mbay mu rafet tool yaa ngi naat dootu booy mooy alxuraan ak sunna nan tànn ñax bu mu rax mhm. li mag ñi bay mooy donog mhm. ku bëggu tool bu du rax jaaraama alxaaji Malick njóogu Osmaana mhm. sa tool ya leer na te naat na yépp na Osmaana mhm. xoolal ca mag ñamu yar mhm. xam-xam bu wóor lañu naan ñoom siñ haadi ñoom siñ maam laaj rawaan xam-xam bu réy lanu la ñu naan ku nekk bay nga sa tool leeral la Maodo ba woon xoolal ko jiitu ca ñoom gannaaw jëmmam kay donoom niroo ko doon rasulullahi mooy turandoom xalifatul xayr topp leen mag ñooñu papa Abdou moom waxoon di bind ci wolof ndax yàlla buy jàngale day yónni ay yonent jox leen seen bi lisaani xaw mi bi lisaani xaw mi mhm. li yu bay na la xum bon maa ngi woo mhm. képp kuy nit diine mhm. ñoom Ismaïla dem mii ak Hadj Moustapha Cissé ñu jóg ñoom ñépp ñu def benn groupe seeti kilifa yi delloo si leen ñu ngi seetaan loo xam ne buñ ko seetaanee dana yàq réew mi coow yi bare na te nu ñu yëkkatee fitna yi nag du yem ci loxo te alxuraan a ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al fitnatu naaimatu laana man ay xasaha mm-hmm. bon ñoom ñii mm-hmm. nanu juboo nekk benn mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen def seen bilan bala ñu leen koy defal te laaj la loo jëloon ci dërëm ca bàmmeel moo gën a metti ka ñu laaj la ko fii te réew mi la nag nanu juboo nanu waxtaan bu nu waxtaanee mm-hmm. solution dana am mm-hmm. moo gën yëkkati fitna ci réew mi mm-hmm. maa ngi ñaan ñépp nitu diine yëpp ngeen jóg ci mbir mii parce que mi ngi avancé te fa mu jëm baaxul déedéet parce que am na ñoo xam ne xamuñu lu xew wallaay foo leen jëmale ñu jëm fa wallaay ndeysaan waaw wallaay ndeysaan def musiba am ba pare nga wut nit ñu lay supporter pour ñu nëbb la nga def kooku du dëgg yoon nañu dellu gannaaw ñu xool yàlla xam ne ñu ngi jëm suñu bàmmeel. 40 ans boo ko amee. ñu jox la carte jaune. 40 ans. 50 ans boo ko amee ñu jox la carte rouge. carte rouge nag dangay génn terrain bi. foo jëm bàmmeel ya. wallaay ndeysaan. te billaahi. bu dee bu dee carte ay namaa takunu la yàlla wax. walaw kuntum fii burujin mushayyada danaa gis histoire yu bari nit ñaa ngi yëngatu mais bu buñ ko nafaree. Mhm. daanu dellu gannaaw. bërki démb ñu ngi doon wax lan ci lii ñu def yonent bi. caricature yi Charlie Hebdo. mais bi bu dee la. Ah waaw. jaar na manifester nag lu tax. Mhm. du nu nëbb seen ki nu gëm. Mhm. xas ki nu gëm. Mhm. mais bu dee la. mi yonent bi sallaa sallam. mësul jóg ci caricature ba ba mu génnaa dina caricature yoo tax mu jóge Màkka dem Medina. est caricature a tax mu jóg xoolal bi nu ko def taayif. wallaay ndeysaan. ba mu demee di wuti nijaayam. pour mu dimbale ko ci ni nu koy xeexee ndeysaan. nijaay ja daal di ko déglu mu wax ba pare. Mhm. mu génn seet dof yi ak xale yu ndaw yi ni leen bu génnee sànni leen ko xeer. ñu caricature ko sànni ko xeer ba bopp bi toj moom Seydina Muhammad sa alayhi wa sallam. yàlla yónni Jibril. ni ko demal tàggu yonent bu nangoo rek wëlbatil dëkk ba ci seen kaw. mu ñëw fekk fa muy kerloo mhm. deret jaa ngi tuuru mhm. mu ni ko yàlla nee na jox ma ndigal ma wëlbati dëkk bi ca xarnu saali waaw mu ni ko boo demee ni ko fexeel na fexe rek ba ba seen euh, euh, xol yu gëm-gëm waaye man jéggal naa leen ci la yoon yonent bi wax tasil man xataak wa toxti man xaramak wax fu an man zalamak boobu caricature buy dund la deret jaa ngi tuuru mu jéggal leen day bill ngi dund mi ngi dund sallallahu alayhi wa sallam caricature boobu moom lañ ko def ci badar 313 plus 1000. wallaay ndeysaan ci la yàlla génnee kam min fi atin qalilatin xalabat fi atan kasiratan bi iznillah waaye nag wallahu maa sabirin bu ko defee nañ def ndànk nanu manifester ndax su suñu yonente kenn waru ko laal mais nañu dem ci alquran seet ñaata yoon mhm. la dal ci kawam mhm. yàlla baare mhm. gul ku ko laal nag موتاخ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور موتاخ ني كونتر غام خمنو ديغنو دام ني كونتر غام واو ني دون واخ صحابه يي دافنو كو مي صحابه يي تالو نكو وون داخ دون جانغال يالا تي يالا موكو غول كي جانغال يالا تي يالا موكو غول ديسن ني لا ري سيدنا عثمان لون كاري lay fekk muy jàng fekk muy jàng alxuraan. te ay jullit lañu. ñu ko rendi waaw ñu rey ko. Seydina Aliin di dugg jàkka ji ñu ñu ñu fett ko ñoom ñëpp par kenn. Mhm. bi fi yonent bi jógee sallallahu alayhi mhm. nan delluwaat ci film boobu. Mhm. bin fi jógee ñooñu tàll nu woon gàmmoo ndax kiy jàngale yàlla te gëmakunu yàlla boo gàmmoo ñu reyal <laughs> Seydina Muhammad bi mu génnee àddina. sallallahu alayhi wa sallam fekk na Seydina Abubakar ma nga ci àll ba. Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliyun la ñu jàngoon ci alxuraan duñ ko daal di fàtte. wallaay ni ku ni dee na ma rey la. wa kaana uxrisa Ousmaanum wa uxbila Faaruqum mhm. wa uqida laysul buhmi wa sababi. ñoom ñetti ñëpp ku nekk léegi séddoo nga euh, taalibe yi. ku nekk ñëpp lafañ ku ni dee na rek te déggoon na ni. Euh, euh, indaka mayitun wa innahu mayitun hmm. kullu nafsin zaa'iqatul kullu man alayha fan déggoon nañ ko fàtte nañ ko xaat ñoom ci saas kullu shay'in haalikun illaa wajha fàtte nañ ko ci saasi gannaaw seen sang seen sopp Seydina Muhammad te ko te mi ngi tëdd ci seen waaw ñuy fàtte nañu tàllunu ko parce que ñu ngi jàngale yàlla te yàlla mokkagul Seydina Aboubacar ba mu agsee dafa ni man kaana yaabudu Muhammad fa inna Muhammad xad maata wa man kaana yaabudu llah fa inna allah hayyun laa yamuut te kat wa maa Muhammadun illaa rasul gaa yi jóg ni que yaay sunu sangu tey waaw wa man yanqalib alaa aqaabihi falan yadurra llaaha shay'an wa sayajzi llaahu shaakiriin ngoog nañ dellu ñu daal di ni que tey ji yaay jiite mm-hmm. naawu Seydina Aboubacar. xoolal ku yàlla nar jiital fa lay jaarale. day ga gagloo ñëpp nga ñëw gàgganti leen. ndeysaan. bon ñooñu tàll nu woon gàmmu. Eh, waaye yaa ngi da ko ne ah <laughs> papa xoolal ñii di ma signal naan ma oh, oh, oh. ba beneen rek ñu mottali. bon niñ ci bëggoon wax bari na. Eh, bu ko defee nanu dellu si eh, nanu dellu si caricature buy dund moo gën bu dee bi tubaab yi def bu dee rek la te dund yàpp wallaay ndeysaan parce que civilisé wunu ñoom. ñoom tubaab bi. waaw civilisé wunu déggunu seen euh, euh, euh, ni nu koy waxee rek mm. déggunu nit ku nekk diplomatie li nuy wax naan. Mm. kenn ku ne da ngeen koy bàyyi ci la mu gëm. Mm-hmm. xam nga moom la ñuy jaay. Mm. mais ñoom déggunu ko. buñ ko déggoon du ñu jël kënu gëm denc. wallaay ndeysaan di xas kënu gëm ñun. wallaay ndeysaan te ñoo bokk ak ñoom kënu gëm. bokkul ci civilisation. Mm-hmm. bokkul ci civilisation. Mm-hmm. ñu koy caricature sa biir déew nga nga nga ànd ak ñoom te bañ ñi nga xam ni moom la ñu laal seen yonent suñu yàlla dafa ni yonent bi neen ko protégé daf ko fonk boo demee léegi subhaanallazi asra bi abdihi xam nga lu yéeme nag bu yonent bi dee yéeg mu naan abd bu wàccee mu ni maakaana muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa xaatima nabiin ba mu jeex huwa allazi yusalli aleykum wa malaikatu kookooy gàmmu nag te gàmm buggoon naa dugg ci li mu indi ci réew mi ci économie beneen yoon du fi xaj di gërëm ñëpp di sant ñëpp appétit bi coupé na yow Ismaïla Dem ñu ngi leen di nuyu bu baax bàyyi ke maa ngi leen di fàttali ngeen jóg nag incha allah ñu taxaw ci réew mi parce que li nuy seetaan war nu ko seetaan te mi ngi yàq réew mi yal na yàlla dimbale ñëpp delloo si xel yi nag delloo si xel yi ngeen baal maax nag suñu fu ni jaaduwul ngeen bal nu ñun alquran rek la ñuy wax di gërëm ñi waron dugg nag te ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax bare na lool ñi dugg itam ñu ngi leen di gërëm ndax lii yëpp mooy mm-hmm. gën leen góorgóorlu rek waaw beneen yoon daanu daje mu gën yaatu ñu waxtaan ci bu baax a baax a baax di eh, ñaanal nag sama mbokk mi nga xam ne nag moom moom place bi xaaji ma Masek Njaay nit ku baax la ndax dama mas am benn ganu saoudien bu fi ñëw mm-hmm. mu jëlal ma ko charge mm-hmm. une semaine jox ko oto jox ko chauffeur jox ko lépp fayul dara. Eh, te kooku liggéeyu diine taxoon mu ñëw. bon ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu soppe la woon yal ko yàlla fay. yal na ko yàlla dolli leer. seen télévision bi yal yàlla aar ko. te mu nekk ay télévision yu bari asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatuhu mbokk yi. ba tabarakallahu gis ngeen eh, waxtaan maam solo woowu suñu waajur suñu soppee suñu sëriñ indi woon eh, yaakaar naa ne kenn doyalul waaye nag eh, liggéeyu télévision moo ni mel di lay cërale ay simili tabarakallahu moom moo ñu xoj waaye ñu kontaan bu baax ci ñi nga xam ne dugg nañu yëpp fa tabarakallahu waaye ak ñi bëggoon a dugg si te mu xaw jafe ci wàllu technique bi ñu jéggul ñëpp ni ko sunu oustaz bay ñaane oustaz Alioune Mbaye bu Sud FM bu Thiès di euh, bu ndakaar di wax ne lépp lu waaye ñàkk ci crédit te jotoo na ko yàlla viré ci sa mhm. compte tuyaaba amiin yal na ko defal ñu jot a dugg ñëpp seen kër di dem te jotuñoo egsi ñu sant leen bu baax gërëm leen temps bi moo ñu xoj sant suñu cameraman tabarakallahu amadu Kebe moom mooy chefu cameraman yi ci kër gi tabarakallahu mi ngi taxaw mel ni soldat boobu croiser les bras ku baax la tabarakallah Alassane nekkoon ci régime bi ndeysaan moom sunu suñu soppee xumb lool ndeysaan yal na yàlla barkeel yëpp yal na yàlla taxawu yëpp su ko defee rek kon dañ leen jox di daje incha allah aljuma ji nu jëmaat ci waxtu wi incha allahu taala ngeen ànd ci ak seen mbokk daara rek ci tafsir beeg yëpp bu ñu amaatee beneen occasion woowaat suñu papa mu ñëwaat ñu wettaliku wontewaat incha allahu taala aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salaam wa rahmatullah